ak Marianne Siva Diop nga indil ñu sujet bu am solo euh, jëm ci façon bi nga xamee ni moom la ñu war a tànnee jigéen. waaw Pape façon bi ñu war a tànnee jigéen wala. soxna. waaw soxna wala jigéen. jigéen waaw d'accord comme dañuy wax ni euh, olof dafay ne jigéen mais jigéen la bëgg wax. Mhm. Pape tànn nag suñ ko waxee. Euh, foo dégg tànn rek am na nombre. Mhm. léegi yow da ngay ñëw fekk ci nombre bi nga ut fa li nga xamante ne moo gën te sooy tànn yaakaar naa ne da nga war a ut loo xamante ne euh, lu kenn amul la. Mhm. wala koo xamante ne dina am yoo xamante ne kenn amu fa. léegi nag dama dégg léegi nii Pape clip bi ñu teg ba dara mu ne am kilifaay li am solo. dëgg la soo ko amee am solo soo ko amul am solo ku wéeruwul yomb bu max. dëgg la suñu maam yi nag wala suñu papa yi dañ fee bàyyi woon loo xamante ne wéeruwaay lañ ko mën a tuddee. Mhm. wéeruwaay yooyu bokk na ci ay critères yu ñu tegaloon nañu booy takk soxna hmm. da nga koy seet seetantal ko bu weesoo oustaz wàllu listixaar bi nga xamante ne moom nga wax sànq hmm. dañu lay wax ni nga seetlu soxna si hmm. seetlu ko ci ay doxinam seetlu ko ci waxinam seetlu ko ci ay jëfinam critères yooyu nag ñuy tànnee soxna moom la ñu nar a waxtaane pap ñu dem xool élément bi laataa ñuy ñëw ci atal gi incha allah léeg nga dem ci kër di wuti soxna boo ñëwee ka nga bëggoon a takk ñun la génn na génn ca soo ko fekkee yenu bopp ba génn ca du dëgg gaaf yooyu dañ ko doon kii parce que ñëw fekk jigéen ni nii <laughs> yenu boppam kooku nee nañ ab ténjkat la te kenn bëggut jël jigéen nag wax dëgg yàlla mu daal lay ténj moo tax daal euh, yooyu yëpp mat nay seet wala wala nga dem sax ci mag mu xam dara mu seetal la Faatu Jóob mii nga jëm ndax jig na la wala la waaye léegi da nga gis ku takk koo xamante du ca seet daara te boo boo ca duggee mën naa am dootoo yor ñaari salaamaaleykum wala loo am mu yàqu wala loo dugg sotti yooyu yëpp nag dafa mat di seet nit day jaar fa maamam jaaroon comme yow yaa ngi nii nii cocc dara dalula la kay ña la yar nañu leen yare buñ la ko dee inculqué da koy nangu mais nag bul jóg rek ber sa yoonu bopp looloo sànq xale yu bëri. xam nga am na jigéen ñoo xam ni dañoo bare wokk seen bopp am na jigéen ñoo xam ni seen kanam la ñuy wokk am jigéen ñoo xam ni bu ñuy dox dañuy aj seen dënn bi am jigéen ñoo xam ni bu ñuy dox dañuy samp seen tànk yi gis nga yooyu yëpp. wala bu ñu woddoo waddin wi du baax yooyu yëpp ay melokaan la yoo xam ni rafetu jigéen ju koy def dox di wokkatu sa bopp foo toll di wokkatu dañ naan la jigéen juy wokkatu da lay téññ bu ko defee jigéen ñi nga xam ne ñooy def loolu bu dee ni dañ koy def nii rek ñu bàyyi ko ndax dañ naan yii bu ma ko nit ñi gisee ci man du ma am jëkkër wala ñu ngay jàpp di wokk sa kanam foo tollu dañuy jàpp ni danga salte te boo saltee kenn bëggu la kon loolu tam day tax kenn du la wut si kon li ma lay wax yar ci li ëpp ci yar rek lañ ko jublu ak defar ak jikko joo xam ni am jikko ju rafet léeg-léeg gis am ñoo xam ne dañuy yëy seen làmmiñ xam nga jigéen ju yëy làmmiñam kooku du ànd àndul ak rafetaay te léeg-léeg itam ñu gaafal ko li ma la doon wax sànq nga ni ah waaye aajowu ko nga dem rek takk takk kay wokk bopp boppam lu bari yow sa bopp nga faatu yow ku góor ki bu ko defee ñu ne ah moom de waxoon nañ ko ko mu të ki nga xam ne fu mu toll mi ngi wokk boppam loolu bu ko nit ñi déggee dana tax ñu gën a rafetal seen toogin rafetal seen jëfin rafetal rafetal seen doxin rafetal lépp li nga xam ne lii dañ koy def te mu nekk loo xam ni rafetul ci gis-gis. yonent bi ne góor buy tànn jigéen la ci juróom daje wala ñeent na rafet. dina tax doo xemmem keneen na bokk ci famille bu rëy dana jomb yenn yi na am alal soo mënul mu mënal boppam ak njabootam na am diine mu jeex na yi daje ci Mariam waa léegi Mariam mënta dajale ñeenti ñu ne yonent bi koy tànn mu ne tànnal ki am diine soo bañee am problème mu dund ndax nit bu amee diine du lore du loru fas far bi daati diin kooku kon góor lañ wax waaye jigéen ku muy tànn jigéen yonent bi ne ko booy dugg jigéen nag booy dugg ci góor na dajale ñett na am jom balaa dugg na yëg ne góor la yoomul muy benn ñu ne ak ban ñu ne Alioune Badara na am dundu xale bi muy ñaar ñetteel ba na Badara am koddaay li nga war a sol na ko mën a jënd ñeenteel ba alal jiñ ko laaj ci yow mu war koo joxe na ko am juróomeel ba buñ la ko mayee na am fu la mën a dugal Badara boo dajaluwul ñii demal nga toog. léeg-léeg nga dem loolee jëm ci euh, gëm-gëm ak yenn yu ñu gëm ci suñu ci suñu aada Marianne nekk gëm-gëm Pape Cheikh comme ni nga ko waxee ak yenn ci suñuy aada mag ñii comme ni ma ko waxee sànq rek ñu di ñu seetloo yenn yenn. gaaf yi laa ko mën a tuddee ndax dañuy wax ni que dafa am gaaf bu baax ak gaaf bu bon. Mm-hmm. Euh, bokk na ci gaaf yi nga xamante ne moo bon dañu la wax ni que su fekkee da nga ñëw di bëgg ci soxna nga fekk ko paap mu nekk koo xamante ne dafay fireeku ñu ne la na nga ko fa bàyyi ndax ki nga xam ni kat da nga ñëw fekk ko muy fireeku tàggale la ak sa ay mbokk dafay yomb ñu ne su fekkee da nga ñëw fekk euh, jigéen mu tàmm tout le temps rek lu muy def rek laal bopp bi ñu ne la euh, koo xamante ne la su amee jëkkër mën naa gaañu maanaam dalay téñji mm-hmm. ñu ne itam koo xamante ne dafay dafay laal kanamam fu mu toll. Mhm. ñu ne la bàyyi ko ndax kooku dafa nekk koo xamante ne setul te kuy tànn soxna euh, bëgg nga tànn koo xamante ne ku ku set la. Mhm. Euh, ñu ne nag am na itam ay gaaf yu baax gaaf yu baax baax yi bokk na ci paap nga ñëw di bëgg nit fekk ko muy togg baa muy lekk. yooyu ñu ne ay gaaf yu baax la mhm. bokk na ci tamit nga ñëw di seet si soxna muy raay biir bi ñu ne koo xamante ne dafay raay biir bi pap kooku euh, boo ko takkee dépense da lay yomb maanaam loo koy jox du la jafe mhm. ah euh, su fekkee nag da nga ñëw fekk soxna si muy jàpp jigéen ñëpp naan nii <laughs> waaw ñu ne ñu am na ñoo xam ni <laughs> euh. dañuy jàpp nii seen digg dañ tàmm ah. def nii ñu ne kooku dafay nekk koo xamante ne ku njaboot la ah. moo tax tout le temps foo ko fekk muy muy jàpp jatu waaw ñu ne itam koo xamante ne waaw waaw waaw ba ba koy xam ndeysaan ci <laughs> imprimerie ba carter ñu laa ko fekk bu taxawee dëgg ne itam pap waaw bu génnee pap su fekkee da nga ñëw di ko bëgg si fekk ko mu génn. Mhm. ñu ne itam na nga ci génn. Mhm. Euh, bëri na ay yoo xamante ne daal mag ñi loolu la ñu daan seetluloo ci ay soxna te nee nañ. Mhm. Euh, suñ la ko teree par exemple nga dëgër bopp ni da nga siy dugg par force. day mën naa am yenn yu la si dal tànk. ndox di diri tànk pap baaxul itam noonu ñuy dégg say tànk waaw yooyu yëpp mag ñi mag ñi dañu ko dañ ko daan tere tere ah. nañ itam tamit nga ñëw par exemple fekk euh, soxna mu nekk koo xamante ni dafay fóot mm-hmm. su fekkee dafay fóot pap dañ naan mooy comme oustaz li mu doon wax sànq mm-hmm. ñenn soxna yi nga xamante ne yow soo leen takkee rek dootoo amati alal ñu ne kii ba mu ko takkee la ay affaire am yëpp fay mm-hmm. loo amoon mu yàqu ñu ne danga ko fekkoon muy fóot ndax fóot dafay setal léegi nag soxna si day daal di set ci yow nga set ci alal. set ci lii set ci laa set ci lala set si set si. moo tax ñu lay tere koo xamante ne da nga ñëw fekk ko muy fóot bëri na yu ñu koy tere aada nag paap lenn rek moo ma metti ci ci ci moom tuuti mooy le fait que mu ne soxna su mu ne ku góor ki sooy tànn soxna nga seetlu lii ak lii ci moom mhm. mais waxul par exemple ku jigéen ki yow li nga war a tànn ci ku góor ki c'est vice versa après góor ay tànn. waaw góor mooy tànn. mais yow tamit pap su fekkee da nga bëgg kenn. mais ñaan nga bëgg bi mu réciproque. effectivement léegi kon jigéen ki moom tamit war na am choix. war na ne Pape Cheikh mi may dugg kat war na am lii ci moom war na am ci laa ci moom. ah yi ngay wax ni waxu année 2000. du waxu année li muy wax nii am na de. ñu ngi ci 2000 Pape affaire bi nekkatul ci ay. oui waaw waaw waaw si Pape. 2000 bu ñu takkee jabar. bu ñu matul ñett toog. maanaam dañuy takk mu faatu takkaat mu faatu takkaat mu faatu ba ca ñetteel ba bu ñëwee moom mooy toog am na ci lu mel noonu donc ni ñu koy xoolee ci jigéen nañ koy xoolee noonu ci góor aussi waaw xam war ko seet mhm. yonent bi ne bala ngeen ciy dugg ko seet mhm. xam nga moom xam nga aada dafa la wax nii mais ku góor ki la wax comme ni ko mhm. euh, ah, ki la wax ne ko booy tànn mais l'islam moom boo li si xaaree yow ko jigéen ki war nga dem li si xaarlu ki ngay bëgganteel ndax sama digg wërsëg sama diggante ak moom mm-hmm. dëppoo na wala dëppoo moom dina la wax ni la yow mm-hmm. lii sa position lii la. moom position am lee la. dëppoo ngeen wala dëppoo leen. mais aada nag aada nag moom xam nga mag ñi dañu dañu dañu doy waar ak seen i seetlu. te mag ñi dañ fi yàgg. dañ fi yàgg ak seen i seetlu. ak seen i seetlu wax nañ sa ñaari jëkkër ak jabar bu ñuy xuloo ki njëkk a noppi mooy njëkk a dee. ah waaw mag ñi dañu daan seetlu. di méngale man du ma xuloo oustaz. nga ma moom man moom ma ko jàpp ma ma xuloo. waaw yow pàtti rek la man pàtti rek. waaw àddina am solo. waaw billaay wax nga dëgg. mais Pape loolu sax boole nañ ko li ma xoolal <laughs> ñaar guddi xuloo guddi bokk xuloo guddi. xuloo guddi xuloo guddi baaxul ah xuloo guddi moom nee nañu baaxul ñu ni ki ki noppi mooy njëkk dee xam nga loolu tamit aada la <laughs> waaw da wax ju bari waaw pap loolu dëgg la mais yaakaar naa ne su fekkee aada tey jii dafa tere dafa waxu tànnalul ki nga xamante ne moo di jigéen ki mm-hmm. su fekkee waxu ko moom critères yi nga xamante ne moom la war a ut ci ku góor mm-hmm. yaakaar naa ne islaam moom utal na ko ay critères mm-hmm. nee na par exemple jigéen su fekkee yow da nga bëgg góor na nekk déjà ku am jom ak ku am ngor na nekk koo xamante am la comme ni nga ko waxee mais na nekk koo xamante ne moom leer na ko ni am na ngóora mm-hmm. na nekk koo xamante ne itam euh, maanaam am na koddaay mm-hmm. dina la mun a dina la mun a yore na nekk koo xamante ne itam liñ koy laaj maanaam sa ay parents ñu waxee ni que lii ak lii lañ la laaj su ko leeree ni que moom loolu amu ko. bu mu ñëw dugg si yow. mais nag ku jigéen ki nag moom dañ koy wax ni ko pap su fekkee dafay bëgg ku góor moom itam dafa war a ku góor ki dafa war a bëgg ku am diine. ndax euh, ndax nee nañ ku am diine pap dafay nekk koo xamante ne dafay am yoo xamante ne day day day neex day daluwaay lay nekk. ba pare daf lay dalal. mu ne su fekkee koo xamante ne la par exemple dafa rafet da lay wax nga tànn ku rafet. mu ne ku rafet. day tax yow ku góor ki doo xemmeem beneen jigéen. day daral xel. day dalal xel doo xemmeem keneen. mu ne na nekk koo xamante ne itam pap dafa bokk ci famille bu baax. <laughs> ndax ku bokk ci famille bu baax dafay am yoo xamante ne. daf koy jombale boppam. waaw na nekk koo xamante ne tamit euh, ku am alal la. ndax ku am alal yow ku góor ki su fekkee mënuloo sa bopp. ku jigéen ki dina mënal boppam mënal njabootam. Mhm. Mhm. loolu lañ la wax ci tànn bi Pape. Mhm. kon yaakaar naa loolu am na solo yonent boobu yonent bi alayhi salaatu wa salaam. yooyu li ma leen wax lépp moo ko wax. Ah. mais fa mu daanale mooy euh, faxtar bizaati diin. loolu mooy. boo ko defee tari bat ya dàkk mu ni tànnal borom diine boo ko defee rek sànni woo sa kalpe ah sànni woo sa kalpe léegi nag ñu ni boo takkee beneen waxkat beneen waxkat ni boo takkee jabar joo xam ne taar ba rek moo tax nga takk ko yow ko góor ki kooku mën a nekk sa seytaane mi da ngay fiir taar taar da ngay fiir hmm. da nga di nga fiira nga wax mën a la dofloo boo takkee koo xam ne askanam kese moo tax nga takk ko hmm. da ngay nekk maanaam ñu baam ci waxin bi da ngay nekk géwélam da ngay nekk koo xam ne da nga koy tagg rek waaw ah, diw ak diw ak diw di wala jur di wala jur di wala jur yaa ngi rek boo takkee koo xam ne alal alal dong moo tax nga takk ko da ngay nekk surgaam hmm. waaye boo takkee koo xam ne diine moo tax nga takk ko mhm. euh, moo tax yonent bi ni faxtar bi zaati diini mhm. waaw maa ngi lay tànn la borom diine bu ko defee boo ko defee rek mhm. taribat ya ak lu ci mënti la seetlu yooyu dafa seetlu ko buñ la waxee xale nag euh, bi waaw euphorie la ko tuddee ba duñu tara def yenn yi non garaawul ak ah, kii moom laa bëgg fekk yoo euh, sëy à vie la ci yoon sëy à vie la ci yoon laaj am na ñoo ah, xam ni am na ñoo xam ni dinañ sëy ñaar fukki ñaar fukki yoon ci at euh, ci ci ci seen dund waaw <laughs> ah, wax euh, wax nañu ni bi yàlla ne ca ca euh, aalimu arwaax bi yàlla ne ku bëgg waaw kay ku yëkkati sa loxo rek ñoo ñëpp ci nga sëy man xanaa fukki jeeg fukki jeeg yëkkati woon seen loxo <laughs> yàlla yàlla ko yàlla déedéet na nekk ñeent rek na nekk ñeent nañu bëri rek déedéet alaaj pap na nekk ñeent na nekk na nekk ñeent wala ñu nekk juróom waaw ñu nekk juróom yow yow normalement war nga am ñeenti soxna kon na juróom yëkkati rek normalement war nga am ñeent war na am ñeent war na am ñeent naa <laughs> ci sànni dara rek en fait man benn kilifa daf ma waxoon ne ma que booy booy booy tak ñun jigéen ñi bu ñuy tànn góor ñu nee na nañu tànn ku ragal yàlla diine gaa am na solo mais mën na bañ am diine sax xam nga mën nga ragal yàlla te doo am diine parce que nee na du wees mm-hmm. nee na du wees mais soo gisee koo xam dafa ragal yàlla mm-hmm. kooku jëkkër ju baax lay nekk ndaxte lépp lu muy def daf koy seet ci diggante ma ah, parce que yooyu yëpp nag di dugg ku am diine si la yërmande di mais dañ lay wax surtout ne la mm-hmm. tànn koo xamante dafa am kersa góor parce ñi ngay gis par exemple si euh, biir si biir ménage pap waaw ci biir ménage da ngay dégg des fois ay histoire yoo xamante ne xam nga dañu dañu yëpp ñu jigéen ñi ñu ne ñu jigéen ñi ngay dégg seen baat mais léegi-léegi nga dégg góor boo xamante ne histoire su amee nga ràllet si bu nee ràllet nga jommi pap la jox loxo pap jox loxo bi léegi pap jox ko jox ko non non pap léegi jéggalu pap jox ko loxo léegi pap jox ko loxo non jox ko loxo dafay toxi ko ñu ne euh, su fekkee da nga koo xamante ne Euh, euh, amul amul kersa. Mhm. tout le temps dañ leen di dégg. Mhm. mais bul tànn koo xamante ne par par exemple dafa bëgg àdduna. ndax ki mhm. bëgg àdduna fu sañse bu baax génnee da koy dem lijjanti ji. fekk na facture yaa ngi jóore ci wet gi. kooku du lijjanti loolu moom moom sañse rek la sañse rek lay lijjanti. moo tax tànn daal yaakaar naa ni pap ni mu amee solo ci ku jigéen. noonu la amee solo ci ku góor. dañuy wax ni que sooy tànn soxna. da ngay mel ni kuy wut tool pap <laughs> bu ko coppati. boo waxuma bu ko coppati. dama ne te sant Diop waaw pap dama ne te sant <laughs> dañu ne ne sooy wut soxna. Eh. da ngay mel ni kuy wut tool. te sooy wut tool mhm. da ngay dem ut suuf boo xamante ne eh, yow leer na la boo si jiwee. Mhm. di nga am li nga bëgg. ba tey la wax waaw wala xabusu euh, wal baladu tayibu yàllaa ko wax yaxruju nabatuhu biidnillah waaye walladi xabusa laa yaxruju illa mhm. yàlla ne gàncax gu baax mooy meññi gàncax gu baax mhm. waaye gàncax gu bon nag moom mhm. mooy meññi gàncax gu bon wallaahi wallaahi donc muy muy góor muy jigéen euh, seet bi daal dafa am solo en tout cas sujet bi am na solo lool euh, ñu ngi la ciy gërëm bu baax Marianne Siva tey ñaan tamit ah sëy yëpp dëgër sëy yëpp dëgg parce que léegi dafa mel dafa xew ay sëy sëy ana mu tas sëy deux mois. moo amul ak mbëggeel. waaw gis mbëggeel bu sincère. Mm-hmm. xam nga dafa am mbëggeel dafa bëri mm-hmm. façon. wala mm-hmm. yàlla ne wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma. wa rahma ak yërmande. yàlla mu ne li taskunu ilayha ngir ngeen mën a dëkkee kër gi. li taskunu ilayha ngir ngeen mën a bokk néeg bi. li taskunu ilayha ngir ngeen mën a bokk lal bi. gis nga lal ni mu xatee. waaw koo bëggul di nga ko jéppi tëdd ci cat la. ko làbbeek doomu catu lal am doomu diggu lal am doomu jëlëbu ma ne ko luy loolu mu ne ma doomu doomu doomu digg lal mooy doom ji nga xam ni papa ak yaay dañoo tëdd kenn ku ñoom ñaar ñëpp yëgante daje ci digg lal bi bu fa doom sosoo lu mu yuuti dana ci jot doomu catu lal mooy doomu catu lal mooy doom ji nga xam ni baay bi dafa tëdd yaayam fekk ji baay ba bégal ko doom bu fa juddoo kookoy tëdd nelaw léppam di dox mun ma doomu jëlëbu lal nag mooy doom ji nga xam ne baay bi day dàq yaay ji pour joteek moom waaw bu demee ba joteek moom bu fa doom juddoo mooy doom ji nga xam ne lu mu song dara du ci du lijjanti ko ko waaw après après tamit ñu ñu ay waay bi yu bëri itam ñu ngi tooñ seen doom mm-hmm. doom yu jigéen yi ci mariage négocié yee sama doom yi diw ak takkal diw ak loolu yëpp ñu ngi ay waay noonu mbëggeel mbëggeel dafa war a am mbëggeel waaw mbëggeel ma yàlla wa jaala baynako ma waddatan ma wadda la yàlla moo gën a fort ci baatu dafa am xobbu am ishq am huyaam am am am xaraam mhm. am wajdu am am mhm. sobb dafa bëri waaw bëgg bi ma bëgg Pape Cheikh bokk la bi ma bëgg Mati bi ma bëgg Marianne bokk bi ma bëgg Rokina ah bi ma bëgg sama yaay bokk bi ma bëgg sama papa mhm. bi ma bëgg samay sœur bokk bi ma bëgg samay xarit façon cofeel <laughs> la waaye bi ci gën a fort nag mooy ma wadda ma yàlla utiliser baat boobu te mooy ma wadda mooy waaw amee lu ñaar ñi nga xam ne dañu war a bokk néeg bi war a bokk loolu nag mbëggeel ba bu amee mhm. yërmande am waaw mhm. ah, moo tax koo bëgg yërëm ko mhm. koo bëgg yërëm ko sama jëkkër yërëm ko sama soxna yërëm ko mbëggeel amul koo bëgg yërëm ko dafa am itam ponk boo xamante ni dama ci bëggoon profité rek oustaz nga leeral ñu tuuti balaa Marianne ngay tëj euh, sujet bi euh, ndoxaan dafa am règle ñun fii dafa am lu ñu tuddee ndoxaan di dem labat waaw dafa am règle bu ci bu ci buñ ci teg mais labat nit war na labat labat dafa dafa dagat ah. laban xam nga dox dañax doxaan mooy dox ànd waaw dox ànd mooy da ngay ànd ak nit ki du ngeen ànd yéen ñaar mais ñun li ñuy doxaane ñoo génn ak moom cinq ans mm-hmm. boobu teguwul ci yoon normalement d'accord mais nag dem seeti dem seeti koo bëgganteel parce que na la seetante jikko <laughs> may na la nga toog ak moom nga toog ak moom waxtaan waaw l'islam l'islam may na l'islam may na mor mag ñi naan la rafetal ko ne mm-hmm. ne la Ah, ah man kat maa ngay dem labati doomu diw mhm. wala sa bàyyi wala ne la xam nga diw ak papa ko mooy doomu yaay ji daa baax demal xool doomam ndax yaay ji na doomam waaye yaay lambal nay doomam yaayam daa baax demal xool ko mhm. waaw bu njëkk nag na mag ñi daan xoole bokkul ak ñun heure bi jamono yi ni ñuy xoole parce que jamono dafa yàqu mhm. doo gis nit tey rek tak ko tey wóoru mais am na sama benn xarit boo xam ne dafa ñëw ci man ne ma am naa ko ma <laughs> mercredi ma dem Ndar di conférence. lu feet la woon wallaahi ci biir conférence ma sama téléphone sonné ma jël ma ne ko maa ngi ci conférence maa la mu ànd déglu may nañ ma ki ma la waxoon démb. Oh. ñoom am na ñeenti doom fi mu macha allah macha allah yàlla koy dogal lenn rek laa ci bëgg a teg mais bu ñu fàttee tamit que wërsëg la. Euh, mooy genre nga sëy ku euh, jigéen ju baax wala góor gu baax. wërsëg la en fait yàlla dañuy ñaan rek yàlla wërsëgale ñu ki gën ci ñun. wallaahi waxal ak jigéen ñi ñu ba seen jëkkër yi ñuy fiire pour ñu bañ a takk ñaareel ñetteel ñeenteel ay waay oustaz waxal ca kaw sama combat de loolu rek la góor ñi mm. jigéen ñi dañu bari ci réew lool rikk waay maa ngi leen di dénk mm. ngeen takk ay soxna góor ñi takk leen ay soxna takk leen ñeenti jabar mm-hmm. yàlla moo leen ko digal mm-hmm. waaw takk leen ñeenti jabar mm-hmm. ku ñëw ak wërsëgam ku ñëw rek indaale wërsëgam nañ takk ñeent ma ci yaay wax loolu man laajal Pape Cheikh ah. parce que jigéen ñi dañoo bari oustaz wax na ko fii wax naa ko fii keroog ñi xamuñu yaay sa Aziz Ndiaye jëkk waaye waaye Pape <laughs> Pape dama d'accord ci mati lu mu wax léegi nii ne ku bëgg la ma wax euh, doom dina lambal doom yaay dina lambal doomam uh-huh. yaay dina jaral doomam duma d'accord ci loolu ku baax ñu ne ndeyam. Mhm. ku bon ñu ne ndeyam. waajur kenn du am fayam. loolu am na. nu mu ci mënti mel du am fayam parce yaa ngi dégg sànq oustaz mu ne la mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wa nee na la mm-hmm. même su fekkee sa waajur dafa nekk koo xam ne day jëfandikoo sàngara mm-hmm. may nañ la nga dem ba fi ñu koy jaayee ñu wan la ko kon moo lay wan ni la rek war ma rek moo war a dox sa diggante après li mati wax itam mooy mooy li aada wax waaw aada aada li aada wax waaye waaye mais xam nga jigéen bu njëkk Marianne da ci am jigéen ñoo xam ne dañu dañ daan sëy sëy bon sonal seen borom kër nekk ci koñ koñ bi di leen atte rek sax koñ bépp xam ni ndaw si dafa bon ndaw dafa bon sa doom ba fay hmm. da nga naan ko kii kat yaay ji dafa bon dëgg la mag ñi mag ñi moo tax bu njëkk la la tax ñu la daan digal ci demal takki doomu diw hmm. Ah? Hmm. dañu amoon yaakaar ca ndaw sa na mu séyee séy bu baax donte nit war na ormal way juróom nit war na fonk way juróom nit dëkk na ci koñ nit ay doomam ci koñ ba parce na mu nekkee ak waa koñ ba aussi <laughs> da nga bëgg ay wax rek moom kër këram dañ koy dëkkante fi mu ne nii saa yi ma dem fa dàq juróom-ñaari góor sortee sama rakk la bàyyi ko <laughs> mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Marianne Siva Diop je rappelle que gëm-gëm euh, mën ngeen amaat replay bi euh, ci youtube bi slash